Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de la campagne électorale à son 12e jour, un journal toujours placé sous le contrôle et la supervision du CNRA, le Conseil national des régulations de l'audiovisuel dont je vous fais d'ailleurs lecture de son communiqué avant d'entamer cette première tranche de ce journal. Le communiqué du CNRA, le Conseil national des régulations de l'audiovisuel, euh, constate que dans certaines fiches de montage remplies et signées euh, par les mandataires, les prénoms et noms des intervenants ou orateurs ne sont pas identiques à ceux figurant sur les listes officielles des candidats. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle que selon la réglementation, le temps d'antenne quotidien des listes de candidats est utilisé personnellement euh, par les candidats investis sur les listes. En conséquence, l'organe de régulation appelle les mandataires à s'assurer de bien écrire les prénoms et noms des intervenants ou orateurs sous peine, pour les listes concernées, de voir le Conseil s'opposer à la diffusion des messages des personnes dont l'identité mentionnée dans les fiches de montage est différente de celle figurant sur les listes officielles. C'était le communiqué du CNRA. Et pour débuter cette première tranche, nous allons voir maintenant les activités de la coalition Art Sénégal. Elle était à Saint-Louis et Richard face aux militants se sont exprimés. Awanjai, Ndeysen, Moussa Diop et Tcherno Alassane Sall, tête de liste nationale de Art Sénégal. Sëriñ Tuuba ma bor boo xamante ni incha allahu rabi dinaa leen ko fay Sénégal Richard Toll bokk ci yoo xamante ne économique Sénégal ci Richard Toll lay jógee muy les problèmes fonciers muy euh, la compagnie sucrière muy ndox bi donc loolu nag war na tax waa Richard Toll bu ñu teyle seen dëkk te bu ñuy xool Benno Bokk Yaakaar moo fi nekk ak Yewwi Askan Wi ñoo nekk ci commune de Richard Toll ñooñu raw gàddu la kenn mënul cumuler trois fonctions Amadou Mame jot maire la DG la ba pare mënul nekk député donc moo tax da leen di jiite rek mais bu bàyyee da koy jox maire ñit ak bu jama est-ce que di ngeen ko dénk jama looloo waral tak looloo waral nag waa Richard Toll yëpp bañ foqati seen baat war ko jël jox ko doomu Richard Toll ku ma xam xam ni man dara ñoruma dul intérêt Richard Toll di leen wax le 31 juillet incha allah yéen ñëpp ngeen génn massivement votel coalition ak Sénégal moom mooy guy gi moom mooy nataalu Thierno Alassane Sall bi ci nekk incha allahu bi ñu am majorité assemblée nationale. mooy déglu leen waxtaan yi ñuy waxtaan ci campagne électorale bi bu ngeen leen déglee dégg ñëpp ñuy wax. di ngeen ràññee ni aar Sénégal moo fi wax wax bu gën a tege wax bu gën a leer wax bi gën a dëppoog seen i problème ak indi ay solution ci problème yooyu 31 juillet dañuy delloo askan wi baat bi buñ fi ñëw di naan ki nga xam ne dafa nekk député depuis 2014 de Richard Toll nekk fi nekk maire depuis 2014 plutôt nekkoon fi député am fi ay ndombol tànk yu ne

donc nañu voté, ngir xam Awa Ndiaye xam Cheikh Oumar Sy avons Sénégal ah, gis par le passé ñu di gërëm ah. di sant. 5000 francs yi di jox di pour ngeen mën lii di nga parti au pouvoir dama bëgg ngeen lii di aar Sénégal ngeen xamante ni seen nday seen international si leen nekk si si honorable député Moussa Diop mi si la kon ma di ñaan ngir combat bi métti lu nek mën na ma ci fek lu ne sama carrière lu ne xañas waye ndar jaral na ma ko di Sénégal jaral jaral na ma dama bëgg nek député bo xamanteni ni damay xex ak ak yelleef damay xex li nga xamanteni mom moy ak ak yelef bi nu wara jox sénégalais bi ak li nga xamanteni mom moy doomu ndar bi lanu war jox ak ak yelefam ndax nekk député dem assemblée di nelaw di seetaan ay poté mooy chou moo fi war jeex ñun dañu war a dem xeexal sunu askan te si loolu la ñuy porté di wax Sénégal sa kaw sa kanam di wax ni ñun ñii ñu ngi nii taxaw ñu ñooy fula jom fit ak fayda dañuy dem ba jeex gaynde la ñu doon ci biir terrain bi moom la ñuy doon ci politique bu nu doon bi ñu jublu nii du ñu daw du ñu ragal xoqatal du nu fi jóge coalition bii nga xam ni moom la ñu séq ak suñuy naataango suñuy mag suñuy nawle yoo xam ne dañ leen a nawloo démb tey soog a ñëw muy ki nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall ki nga xam ne nee na booy wax pétrole ak gaz nekk ci wetam boo yoree almet boo moytuwul tàkk ndax da cee tàkk rip waaye député Cheikh Oumar Sy bii nga xam ne doomu ndar la te fépp fu ñu mas a wag a jaanee suuf wala intérêt askan wi mu jóg taxaw moom tamit yaakaar naa ni war nañu mën a delloo ku ni moom ca assemblée kon bu ñu bëggee am ay député yoo xam ne dañuy aar géeju ndar aar nappu ndar aar intérêt yi doomi ndar yi ñu ngi leen di woo le 31 juillet incha allah ngeen voté la coalition aar Sénégal jërë ngeen jëf. Serigne Touba Alhaji Malick Hukunta Ndiassane ak Cheikh je vous donne son programme pour demain. Art Sénégal sera dans les localités de Kébémer, Ngaï, euh, Tiwawon et Thiès. Voyons à présent la coalition Yewi Elle était dans le département de Kungel entre caravanes et rassemblements. Et c'est la tête de liste départementale, LHG, qui s'est exprimée au nom de la coalition. Doxaline bu bees yi aar ah, suñuy constitution la paix yi au Sénégal Yewwi mooy sa mission Yewwi Askan Wi injustice lay

ndax waa département Koungheul sonn nañu ñu leen di imposer des leaders yoo xam ne am nañ plus de quatre-vingt-trois ans dafa doy ndaw ñi fippu dafa doy ndaw ñi fippu waaye dafa doy ñu wóolu la la conférence des leaders gunge leen ba assemblée nationale di wax ne li xew ci département de Koungheul dafa war a yee bépp doomu Koungheul département boo xam ne bi ñu ko defee département ba léegi amul benn infrastructure boo xam ne gouvernement def na ko du préfecture du inspection du loo xamante ni ay infrastructure yu jëmmal département la waaye nag boo duggee ci département bi amul benn yoon bu baax Touba Ali Mbène ñi ngi jooy yoon Lour ñi ngi jooy yoon Ribo ñi ngi jooy yoon Arafat ñi ngi jooy yoon Saali ñi ngi jooy yoon Idda Mouride ñi ngi jooy yoon amuñu fuñ jaar loolu war naa tax yenn waa département de Koungheul ngeen engagé wu voté massivement la coalition Yewwi Askan Wi suñuy tawat suñuy tawat dañ koy dénk coalition Yewwi Askan Wi yóbbu ko assemblée nationale pour mu fajal ñu ko surtout bu ñu gisee suñ mbokk baykat yi tey ñu boole leen ak opérateur économique boo xam ne candidat la mu exploite leen de façon très misérable baykat amuñu jiwu engrais bi cher dund bi cher litre diwlin 1600, kilo chef 400. cent saako engrais 23000. dafa doy Yewi askan wi dafa taxaw pour yewi len. donc nous votez massivement la liste Yewi askan wi au soir du 30 juillet 2023 La paix et pour demain, la coalition yehui Askanui sera dans le département de Linger, mais également à Mbake. Troisième ce soir dans cette euh, première tranche, euh, la coalition Les Serviteurs MPR ils se sont rendus hier à Yumble et Pékin entre caravanes et visites de proximité. Et nous allons suivre Pape Djibril Fall, tête de liste nationale de la coalition. jërëjëf euh, mbokku Sénégal ni ngeen koy gisee fan yii yëpp ci biir campagne bi ni ñuy àndee ak yéen di dem ci ay barab yu fasantikoo ci biir réew bi. ndax niñ koy waxee jamono bu ci nekk loo xam Samba rek Samba gën laa xam boppam élection nag du ay caaxaan du ay tappale yaakaar ju mag moom moo ci yëkkatiku yaakaar jooju nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkk tàllal seen loxo di laaj di dagaan baatu askan wi dañu am obligation farata la ci ñoom wareef la ci ñoom ngir yaakaar jooju ñu dëggal ko bañ koo tas yëmbal ba la ñu jógee trois siècles la yëmbal am benn tali lañu am te yëmbal nekk dëkku leer ni ngeen ko gisee nekku dëkku xam-xam nekk ay dëkku boroom xam-xam suñ ci tuddee nekk troisième capitale bu Layeen ñu sant bu baax kilifa yi nga xamante ni yëpp tijjil nañu seen seen bunt dégg déglu nañ ñu dégtal nañu tamit li nga xamante ni moom mooy yóbbal bi te loolu la ñuy ñaan képp koo xamante ni jóg nga ngir taxawal Sénégal yóbbante boobu boo eggee bul ko fàtte ndax ndaw da koy mat honorabilité bi dugg assemblée nationale taxul nga tudd honorable li li la fa yóbbu tant que defuloo ko mën a nekk honorable fa ñu jaar ba fii ñu agsi muy caaro yeeg yëpp dajeeg ndaw ñi li ñuy mag ñëpp di wax mooy kër yi retraité yi ñoo ko yor te retraité kursam waroon na koo doy ak transmettre li nga xamante ni jottali li nga xam moom moo nekk ci moom léegi retraité boobu day jog dem di wuti dépense am na fu ñoo xamante ni luñ ñu wax mooy léegi benn cin la ñuy taal par jour ndax njëg yi cher na lépp cher na te lépp am nañ ko ba pare ñàkk lépp loolu nag mënatul woy loolu moo ñu yëkkati loolu moo tax mënatuñu nelaw loolu moo tax ñu jël suñu guddi ak seeni bëccëg ngir taxaw ci te nit ki bu lekkul ba suur naanul ba màndi amul kaaraange waaw kon lan mo taxone ñu bolé suñu doolé mutualiser les efforts pour vivre en société lool nak assemblée nationale def ci am rôle bu mag bu mu ci wara jouer ci contrôle de l'action de ak évaluation des politiques publiques fi bu xiné nit ñi seen xel dem na génn bi day jafé dugg bi day jafé parce que le service public du transport tamit nekk fi une réalité té lool yépp ay ay jafé jafé la les jeunes diplômés sont là mënuñu am liggéey ñi am métier lañuy ñuy liggéey mënuñu leen mënuñ ci am dara ndaxte dëkk bi metti na mitit bi foko tak wessu nako motax buñu accès tax bu li ñuy gën intéressé moy ñu dégg askan wi seen jàmbat déglu leen nga xamanteni dinañ xamal nguuru Sénégal ak député Sénégal ne leen seen taxaway bi ngeen waron def defu leen ko waye ngir lolu gëna mëna am solo il faut que ñu déglu askan bi tamit ndax lo xam samba samba gën la xam bopam donte coono yi ngeen di dund mom lañuy dund. ñepp a ñepp ñëpp xalé yi di jang tay bo amé diplôme do am fo liggéey soo amee métier doo am foo ko expérimenter donc loolu c'est le mal du Sénégal actuellement leneen li nag mooy dundin bi waaw boo ñëwee ci quartier yu mel nii xam nga bu nawet amee bu tawee am physionomie bi yëpp day soppeeku waaw physionomie yëpp day soppeeku loolu nag ngeen dégtal ñu ko ñun ñu dégg ko mu génnee ci yéen ñëw ci ñun mu des ci sunu dënn des ci sunu xel ak sunu xol ñu yóbbaale ko suñ demee nag foofu taxawal leen fa waaye duñ ci yem waaye dañuy dellu si di xool ndax ñoom la waxanté won ak askan wi ngi koy def wala defuñu ko li mo yëkëti assemblée nationale évaluer ak contrôler l'action de l'exécutif, évaluer les politiques publiques kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant yeen ñi nga xamanteni ni ñuy top di ñaan ngeen votel au soir du 31 juillet la coalition les serviteurs MPR dinañ nekk ay ndaw askan bi bu wër dinañ leen taxawal fële ci assemblée nationale pencum ndaw réew ma bu wër dinañ taxaw taxaway bo xamanteni xam ngeen ne ay nit yu moom seen bop ñofa fa nekk ay nit yo xamanteni duñu doon ndawal kenn ku dul ndawal askan bi te loolu moo ñu fa fas yéene yóbbu suba bu nexee suñu borom dinañ tàbbiwaat ci beneen barab boo xamante ni lenn rek moo ñu fay yóbbu mooy saafonteeg askan wi déglu leen ñu dégtal ñu seeni kàddu ñu dékk leen li nga xamante ni moom mooy sunu ëmb ñu def ci li nga xamante ni moom mooy sunu jafe seeni jafe-jafe ñu daal di koy yóbbu nag assemblée nationale ne ko bëcc ci kanamu gouvernement bi daal leen di fàttali li nga xamante ni moo taxoon ñu fal leen ku fàttali la fal nag booy folleeku doo ko yëg te fi mu ne nii folli leen sax waaye génn nañ leen ci xol ndax yëg nañ ne taxawatuñ leen ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërë ngeen jëf Do it. Et pour le programme demain, euh, la coalition Les Serviteurs Impairs seront à caisse. Et pour euh, terminer cette première tranche, euh, je vous invite à regarder la coalition Buntubi qui s'est rendue hier à Gejawai et à Cœur Massar. Mustafa Gay et Moulay Kamara, tous deux investis sur la liste nationale, ont fait leur déclaration. la ñuy jaar amul tëb palanteer assemblée dañ cee dañuy gagné sans guerre dem toog sunu kër amul xulloo amul xeer. asalaamualeykum wa rahmatulah yéen waa Sénégal fu ngeen fi mën a nekk du ñu dégg xam leen ne tey ñu ngi ci mbëbës mbëbës nag c'est un phénomène c'est un fléau mbir la moo xam ne waxuma Sénégal mais lëmb na àddina communauté européenne banque mondiale fonds monétaire international wax nañu ci du benn du ñaar du ñett. Bako ko Senghor di jële fii le lac Mbeubeuss c'était le lac salé le qui a le meilleur le meilleur sel en Afrique occidentale Zangor moo ko sacrifié jële ko fi lac bi nag dafa am ay ay ay ay ay ay dérivés yu bëri yu yu négatif mooy la zone des Niayes fi la ñuy béyee tout le maraîcher yuy dem dans le Sénégal fii la ne su nappe souterraine bi moo koy arrosé kon ñun war nañu fexe nu ñu def ba ñi fi né ñu jëlé leen fi ci ay projet de loi yo xamné bu ñu voteelee ñu tëgg projet de loi yo xamné ne daañu fi jëlee mbëbës man sama projet de société yëmbal Nord suñu ko jëlone ñu jël sama équipe ñu teg leen ci mairie bi kon suñu mbalit dootul ñëw mbëbës parce que compétence yi tax l'humide du ñëw mbëbës le plastique du ñëw mbëbës le carton du ñëw mbëbës le fer et le verre du ñëw mbëbës l'humidité il ne pour du compost dans tous les arrondissements du Sénégal bobus va être éradiqué sans grand problème mais politique c'est de l'or dur c'est de l'or dur le plastique coûte des milliers de milliers de dollars après avoir été recyclé le carton coûte des milliers de milliers de milliers de centaines de dollars ou d'euros ou de francs quand il vient être recyclé les câbles électriques c'est la même chose donc nous qui habitons cette cité qui habitons ce département nous devons nous sacrifier corps et âme pour que nous puissions gagner gagner département Si nous ko gagner avec une majorité bu le département Sénégal yëpp def nii ñu def pour jële fi lu mel ni mbëbës ñu le ko ci yeneen dëkk yi li Sénégal dina une paisibilité donne dina am possibilité euh, possibilité qui infrastructure aussi li am solo moy ci industrialisation d'une économie te industrialisation économie bi suñu ko fi plastique bi famuy dem lu Sympa day dundat lu est day dundat suñu fi jëlé yenen yi nga xamné moy carton bi ak yoyu day lo day tax Sénégal dundam gëna yomb te it fi wax rek suuf si ndox mi boo ko gasee problème la mbëbës moo ko créé. ñu dégg naa dañuy maye ay teen ay ay puisard ñu di ko def ci buntu kër yi mais toutes les maladies yi ngay gis ci sous région bi puisard yooyu ñoo ko indi ndax ndoxu mbëbës la ñuy puiser ñu di ci fóot suñuy yére te lu ñu ci def les détergents nécessaires ñu di ko sol mu di ñu andil ay wokkatu di ñu andil des problèmes dermatologiques yu ñu xamul fu fu ñu koy fajee. donc mbëbës li mu nu def mënuñu ko wax mais mbëbës defuñu ko mbëbës dex la woon mbëbës ay tool la woon yu délimité wu jóge Malika ba romb Kër Massar mais politique yi nga xamné ño fi nekkoon depuis Senghor Abdou Diouf Abdou Diouf jóge fi Ablaye Wade di ñew ki fi nekk tay ak ñikoy top su fekkee bàyyi wuñu xel sénégalais yi mbëbës du fi mës a donc sénégalais yi nañu bayyi xel seen bop pour jële fi ñi fi ne pour mbëbës mën fay jóg ak yenen yu melni ni mbëbës fi assalamu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aujourd'hui il est véritablement déplorable de constater que les politiques publiques en matière de développement dans ce pays-là ont lamentablement échoué, surtout au niveau de la banlieue. Raison pour laquelle Buntubi, en tant que coalition citoyenne, au niveau de la banlieue, est en train de déployer des moyens, des motopompes, avec ces hommes, ces femmes, pour vraiment soulager les populations de la banlieue. Pour le assemblée lii la ñu wax lii la wax lii la wax lii la wax xaaj xaaj xaaj ay ca ñu dee amul dëpp parentel xaram demoon na bay ne yaakaar C'était la coalition Buntubi qui est attendue demain à Touba, euh, Tiwavon et Dakar. Et je vous refais lecture de ce communiqué du Sénéra. Communiqué du Sénéra, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel constate que dans certaines fiches de montage remplies et signées par les mandataires, les prénoms et noms des intervenants ou orateurs ne sont pas identiques à ceux figurant sur les listes officielles des candidats. Le CNRA rappelle que selon la réglementation, le temps d'antenne quotidien des listes de candidats est utilisé personnellement par les candidats investis sur les listes. En conséquence, l'organe de régulation appelle les mandataires à s'assurer de bien écrire les prénoms et noms des intervenants ou orateurs sous peine pour les listes concernées, de voir le Conseil s'opposer à la diffusion des messages des personnes dont l'identité mentionnée dans les fiches de montage est différente de celle figurant sur les listes officielles. C'était le communiqué du CNRA. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première tranche du journal de la campagne électorale, toujours placée sous le contrôle et la supervision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Je vous retrouve à 20h40 avec les coalitions Natangé Askanui, Bokugis Gisgis Ligay, Beno Bokuyakar et la grande coalition Wallou Sénégal. Merci et à tout à l'heure.